salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar leen baalu xaq ñaan borom subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal xadiisu tey bii dafay wax an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala annabi sallallahu alayhi wa sallam sharafu almumini salaatuhu billeyl wa izzuhu istignaauhu amma fi aydi nnaas saxiixul jaamica xadiis bi ñu ko jëlee ci abu hurayrata radiallahu anhu mu ne bi sallallahu alayhi wa sallam teraanga jullit bi mu ngi ci julli guddi mu waaye tedd ngeem mu ngi ci doyloo alal ji ci loxo loxoy nit ñi xadis mu ngi ci saxiixu jaamia maanaam jullit bu bëggee teraanga nay julli guddi buñ ne julli guddi mooy diggante Eh, ginnaaw gee bala muy tëdd wala bu tëddee mu jug ci guddi gi wala mu teel a jug bala ñuy solaatu donte ne ñaar ba ñeenti ba juróom benn rakk lay julli sax naafila ko nee na loolu teraanga la ci jullit maanaam bu ko dee def yàlla dina ko defal teraanga incha allah dina gën ay moromam dina raw ay maasamit nag na raw ay maasam raw ay magam raw ay ay ay ñi nga xam ñoom la jamonoon teel loolu yëpp ci xeetu teraanga la raw leen ci wàllu yàlla raw leen ci doxin ci àdduna ndax wax booy nit buy jullit buy teel a tëdd di teel a jóg xel mi dafay màgg day yaatu te da koy may wérit mhm. dana dana may gudd fanit teel a tëdd teel yow damay gudd fan te dana am daraja ci yàlla loolu mooy teraanga bi bu fekkee ne nag tedd nga bi nag mooy doy li ci loxoy nit ñi mooy li ko yàlla jox mu doyloo ko ba gisul leneen lu keneen am waaw kooku moom mooy mbir mi maanaam nit bu bëggee bari la rek na doylu ku doylu rek kooku ku bari la ku riis la riche buñ ko waxee mooy ku doylu parce que moom jeexalul dara waaye nit lu mën a am ci àdduna te doyluwul kooku richun ba de faqir la amul dara ma ba léegi mu ngi soxla lu am solo la doylu ñu ko la defal لو لم يريد تنقى حديث فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته